mbokk internet public SN TV nuyu nañ leen te nag ñu ngi ci mbedd bi ñëw waxtaan ak suñu mbokki naataango chauffeur particulier yi ci li nga xam ne mooy dogal bi nga xam ne état jël na ko muy visite yi nga xam ne arrêté gum nañ ko fii ñetti weer tey nag ñu wàcc terrain bi mbokk internet yi waxtaan ak ñoom laaj leen seen xalaat ak seen gis-gis ci li nga xam ne moom la état yëkkati ci ndogal bu mel noonu. waaw bu fekkente ne si ñoom décret la boo xam ne si ñoom ñoo ko ñoo ko xaatimal seen bopp ne dañ ko annulé dina tax gars yi mën a lay ci lu bari ndax koo ko wax danaa la dañ ko annulé mais bu fekkante ne si nii nekkul loo xam ne si lu ñu annulé la kon gars yi moom duñ si mën a lay mais loo xam ne si na comme ñoo ko annulé moom dina permettre gars yu bëri mën a lay koo wax mun la awma visite technique koo jàppoon ne bu ise mun la visite technique moo kii ku toj parabrisam toj lu nga ne ko nii mun la visite technique tax tamit man daal su ma sañoon daal durée bi daal jaru sax muy yàgg ndax oto yi a nekk en règle parce que visite technique tamit nekk na loo xam ne si luy dimbali chauffeur la nekk na tamit loo xam ne si tamit premièrement kaaraange chauffeur la. visite Dakar kese rek biñ ko fi defee foofu rek nga xam ni kii na boobu problème la woon waaw da fanaan fa rag da nga daan gis gars dañ daan dañ daan rangay yaraax bu autoroute mais biñ ko déplacé yóbbu ko mbaaw da nga daan gis da nga daan ranga ranga rang daanaka ba ba fanaan foofu bay bëgg a dee da nga ñëw 6 heures wala 7 heures fanaan foofu ba bët set nekkaat foofu presque ba 14 heures do am visite kon buñ nee buñ nee Sénégal gépp ñu pour ñu ñëw passé foofu boobu doon dañ dañ doon képp ku oto dong na nga fa jaar nuyoo rek blocage lay indi bo xamni kenn xamul ñu ko ah lima japp ni mo mo gëno bala ngay jël mesure yoy nga fexé ba Dakar département bu ne nga am fa ben centre bo xamni ni day def visiting raison yi nga jëma fexé ba du moins bu ne ku ne am fa ben bu ko défé di nga mëna ki kii mais mais loolu kuy imaginer sax warul mëna nek parce que Sénégal ni mu toll mais mëno kuy bëgg visite rek ñëw Dakar. lool mom buñ ko waxé amna buñ ko waxul tamit amna na ci seen walu bop tamit xam nañ tamit lu am la. parce que tamit bu fekkante ne si loon dëgg bëri na fi oto yoo xam ne si ñu ngi fi nekk di circuler te boo leen xoolee mérité wuñ sax am visite technique te dañ koy am parce que tamit li gars yi wax tamit loolu dëgg la am na nooy doxe da ngay am visit mën ngaa nekk en règle nga dem doo doo am visite technique mën ngaa nekk fausse règle tamit nga dem am visite technique. non dinañ ko sax respecté mais xam nga ak ak Sénégal li mu tëddee. dafa ci bare yoo xam ne euh, xëy na da ngay dem ba ci biir léeg-léeg parfois nga gis ñoo xam ne mën nañoo euh, lijjanti visite te te te duñu oto bi du dem yu bare da ciy am mais euh, li ci gën a kii Dakar dong laa la wax Dakar dong benn centre visite mënu leen a régler seen problème ba Sénégal gépp benn centre pour bëgg leen a moom loolu loolu moom man ñi ma ci pointe du mooy ñi fay liggéey parce que ñoom en général ñoom ñooy kii yooyu des nga gis nit ñëw ñëw di kii visite. di di di uh, bëgg visite bëggoon ko jaar ci yoon di ñëw mais dañ dem dàq bi day metti day metti day metti boobu na noo il faut ma utiliser jaar fi gars yi jaar buñ leen toppoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dañ leen fourrière ñoom sax dootuñu dawati saxumtumaak sax fourrière wartuñ sax daw mais ni ñuy doxee moo tax ñu am lépp parce que tamit boo fa taxawoon tamit di nga gis ni ni caractérise di jaale daal. mesures yi ñu jël yi yëpp yëpp il faut que mu am suivi il faut que mu am suivi te suivi li koy régal mooy du question que ni jël affaire yi ah tàng sama loxo rek ma je non da koy ñeme parce que sénégalais yi sénégalais yi li problème bi ñoom lu muuru seen bët la rek bis bu bis bu ñu ku dëggu ku ku lu metti bu ko muree ñëpp ne lii mooy ñëpp jaar ci yoon woo ñun loolu il faut ñu def ko suñu xel. comme ni ngeen ko gisee waxtaan nañu nga xam ne chauffeur particulier wax nañu seen xalaat ci li nga ne ndigal loolu état jóge yëkkati muy jëmale ci visite technique nga xam ne arrêté gum nañ ko fii ñetti weer duñ ko def ñoom nag gis nañ ne loolu doon na liggéey boo xam ne luy tasaare liggéey bi la ndax nee ñu jàpp nañ ne oto yi fi nekk yëpp ci Sénégal ñar leen yóbbu ñoom ñëpp fi nga xam ne mooy yaraax def fa visite technique day xaw a yéeme ba di am na ñoo xam ne sax dañ daan jógee ci dëkk ak dëkk di ñëw ñu renvoyé ba beneen ba beneen yoon kon loole doon na loo xam ne ñu ne bokk na ci li nga xam mooy delloo ginnaaw li nga xam ne mooy boobee kon nag mbokk internet lii la leen andiloon waxtaan ak suñuy naataangoo chauffeur particulier di leen jox beneen yoon rek bu ko defee incha allahu rabi ngeen di abonné bés bouton de notification bu ko defee nga xam ne lépp loo xam ne dañ koy dugal rek ngeen mën di ko gis di ci di ko di ko wóyale ci askan bi ngir maanaam lépp mën a mën a dox jërë ngeen jëf